asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu sibur ci biir réew mi ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen nuyoo fii ci kër wàllu ginnaaw bi nga xamee ne dëkk bu sell bi di Touba fan yi ab taw bu métti daf fee am jural askan wi jafe-jafe yu baree baree bari waral nag ñu bari ci askan yi bëgg leen dimbali fekkoon jàmbaar yi Touba ca kanam waajuroon barab bii ngir daral fi lenn ñi nga xam ne dañoo amoon jafe-jafe ci wàllum inondation yi jamono ji nga xam ne ci la ñuy dëgmal màggal gi ginnaaw bi nga xamee nag taw boobu ñëw na ci dëkk bi jafe-jafe yi am nga kon baax baral seen ay jéego lool ngir nag yeggale barab bii ngeen di gis ngir daral fi lenn ki ñi nga xam ne dañu fee loru ñu fi nag teew ki turu kuréel gi nga xam ne ku tedd ki Cheikh Mountakha moo ko taxawal tudde ko Junnatul Liman Nodama ci commission communication la ñu fi teewee ngir ñëw nag nemmeeku ñi nga xam ne ñoo fi nekk waxtaan ak ñoom ci yan situation la ñu nekk jamono ji par rapport ak situation yi nga xam ne ci la ñu nekkoon seeni kër ñu bàyyi ko ñëw bi ñu ñëwee fi nag fekk nañ nekk suñu côté yoo xam ne ah, ci turu lañ ko fi defee muy yoo xam ne mi ngi fi ñu dalal ci ñu baree bare bare ci askan wi waaye tam fii nga xam ne itam mooy suñu ginnaaw gis ngeen ko toilettes yu ñoo nekk noonu fii askan itam nekk fii ci nekkin noo xam ne dëgg yàlla macha allah mel na ne lool fa ñu ne woon kon ñoom la ñu bëgg waxtaanal ngir nag ñu wax li ñuy dund fii jamono ji waaye itam laata fii fa ñu jóge woon ba agsi fi mbokk mi ñu ngi leen yu baax di la ziar ñu fekk le fii ci kër gi ñuy wax kër wàllu eh, man ne kon da ngaa bokk ñi nga xam ne am ndox moo leen jëlee fa ñu nekkoon ñëw fii eh, yan kàddu nga ñu mën a dénk ci situation bi nga xam ne ci ngeen jóge ak bi ngeen nekk jamono ji mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo jéem lii ba suñu borom dogal mu sotti ci jàmm salaam muy liggéey bi nga xam ne mooy liggéey Touba ca kanam di jaajëfal mbokki taalibe yi nga xamante ni seeni fukk la ñuy boole ak seeni juróom ak seeni ñaar dërëm di ko dugal ci liggéey bi ci Touba ci kanam fexe ba jëmmal ko ba mu mën a taxawal ay entreprise yoo xam ni yoon wi da ciy da ciy yokkoo waaye tamit sëñ bi da ciy amee li mu bëgg di wax ni Touba ci kanam liggéeyam bi rafetlu nañ ko bu baax a baax. dana wax ne wax dëgg yàlla fi ñi fi ñëw ñi gis ñëpp ak jaaxle moo leen fi indi te it ba ñëwee seen xel dal na li doon séentu lu ko raw moo fi nekk li nga gis sama gannaaw nii ak nekk sama kanam nii. lépp waa Touba ci kanam ñoo ko fi indi te waa Touba ci kanam bëgguñ ñett nit sax bokk néeg dañoo bëgg ku fi am soxna nga bokk ak sa néeg bëgguñ mu wax dëgg yàlla tumuraanke wuñ ci dara dara tumuraanke ci ndox mi ñëw na zingeen courant bi ci kaw néeg boo fi gis ñetti ventilo mi wala ñeenti ventilo glace gaa ngi ñëw courant bi dara dara dara manqué wut wax dëgg yàlla xéwal yi doy na sëkk ni nga ko doon xéwloo sa kër nu ko daw ngay xéwloo fii su ngeen demee ci waañ wi ay jigéen ñi fi ay mën la ñu togg waañ ay mën lañu togg reer kaf gi ay mën lay doon mburu mag bër bi lépp day ñëw ñun nag situation yi ñu ñëwoon ba tax ñu ñëw fii mooy suñu borom dafa dogaloon keroog si talaata suñu borom dogal mu taw taw bu metti waame wi daaneel sama miir man mii di wax ak yow dugg ci biir kër gi ba egsi si lal yi ma génn suñu borom dogal na fi ma nekk xaw ma xat ci man ci lool te borom njaboot laa ma ne nag dégg naa Touba kanam muy def ay ay jëmtukaay yu solo mooy ay ndimbal yoo xamante ni euh, da ci taxaw askan wi bañ mën a génn ci situation yu ñu nekk ma dem euh, gëstu ji ko bi ma ñëwee nag sina fekk sëñ Abibu muy ku baax di ab taalibe ko bëgg sëñ Touba ta fa seeni ko liggéeyal bi sëñ Abibu ñëwee bi fekkee ma toog noonu dane ma ah, bi yéen daa mel da ngeen ma ne ko ah man dama jëm si woon ci barab bi ndax damaa dégg ni waa Touba kanam a ko fi def mun waa loolu de loolu rek mu lañ fi def waaye kon ni ngeen defoon de am na sax ñu ko programmé woon waaye ginnaaw yéen ak si ngeen te seen kër ndox ma dafa ne mën ngeen fee nekk ba heure bu leen soobee wala heure boo xam ni suñ borom dogal na seen ndox wàññi ko ngeen man delluwaat fi ngeen newoon. wax dëgg yàlla suñu taxaa moom suñu li naan ku ya ku ku jommi am na foo yaakaar a wéeru suñu taxaa wax dëgg yàlla mën na wéeru waay wéeru na ci kawam boot nañu dal na suñu xel wax dëgg yàlla liñ doon séentu ci suñ tubaa lépp gis nañ ko suñu muntaxaa ñi nga xam ne fekk mu jamono yi suñ tubaa fekk nañ sa jamono suñ tubaa daa mel ni fekk na jamono suñ tubaa ndax wax dëgg yàlla liñ doon tiit ak li doon jaaxle lépp wax dëgg yàlla ba ñëwee fii su xiinee sax da ngay fas yàlla ba yaandoor doo ragalam ndox te lépp suñ Muntaxa moo ñu may doole moo ñu kàttanal yàlla suñu borom yàggal lool te wéral ko fi. fii ni ñu fiy dunde dëgg yàlla ñu ngi ci suñu jàmm bu baax bañ jógee ci suñ kër yi taay ba tey ñu ngi ci jàmm manqué wuñ dara waaye nag li ñu gënaloon buñ sañoon day wax dëgg suñ kër ya taa ndox ma jóg fa ak man ñu mën a delluwaat ci suñu njaboot. ndax wax dëgg fii neex na suñ dara manqué wut waaye kenn ku ne sa kër nga war a mën a ràcc fii nag moom dara manqué wut dimbale ngeen ñu bu baax nag ñu ngi leen ciy sant di leen gërëm di leen ñaanal ngeen yàgg lool te wér mbooleem jullit yëpp ark sëñ Fallu waaye nag kër yi daal moom buñ sañoon daal ñu fexe nañ ñu ko defarale bañ mën caa dellu. Touba li muy rëy rëy rëy koñ bu ne am na ko fi jógee am ñoo xam ne xamatuñu woon tey ñoo bokk waañ bi. ñu ngi bokk ndey di bokk baay di kaf di góor ñi am ñoo xam ne xamante wuñu woon te insa allahu rabbi suñ jógee fii it day gën a continuer suñ suñ Tuubaa bool nañu ba pare li waral lépp dafa am na suñ Tuubaa na moon ci ñun mooy ñu xamante fii nekk ay mbokki taalibe gën a déggoo gën a jàppalante te it yaakaar naa ne li ma doon wax jëwrin rek ay daayira yu bëri wanaa man forme bu ci biir ñu tuddee ko it daayira Tuubaa ci kanam gën leen a yokk doole naam am nañ doole ñu gën leen yokk doole ndax ndimbal du doy ndax bañ jaaxlee gis nañ ko ñu dimbale instant yi jooyu ndey jooyu ñu baañ suñ mën taxaa taxawuñ fu ñu war a taxaw yëpp taxawee ñu fa man si laa jóge arabaara siise laa jóge ñëw fii keroog ba fi fii moom dañ ma génne yóbbu ci geneen kër maa gone yu ndaw yi samay yu góor des fa waaye keroog ci tàkkusaan bañ ñu fa jëlee indi fi ak léegi man sax delluwaatuma ci kër gi ni tey nii waaye gone moom ña ngi fay dellu am ñoo xam ne it ña waaye buñ fanaanee wàcc dañ ndox mi waaye ba tey ñoom nee nañ kii yaata am yoo xam ne yàqu nañ am yu yàquwut yooyu yàquwut daanaka moom la ñuy gàdd loolu la ndax nit ñi ba wuñ dara. ndax biñ fi ñëwee ak tey maam lépp sëñ Abibu ak ñim àndal ak waa Touba ca kanam ñoo ñuy taxawu ñoo ñuy eh, jox lekk ñoo ñu jox naan ñoo ñu jox jëmtukaay yëpp ba ci oxygène sax am na ci yoo xam dañ ko fi indi suñ tuwaale léegi yëpp lu fees ñu ngi koy vidé di ko yóbbu lépp daal programme bi dëkkin bi moom aw na yoon lool. loolu ñu ngi leen ci sant bu baax te di leen ci gërëm. di ñaanal sëñ Abibu Mbàkke nga xam ne moom lañ fekk si fi daal bi ndax wax dëgg fa yàlla am bi ñëwee ba tey taxawu nañu lool taxawu nañu yër nañu yërëm nañu ndax macha allah ba ñëwee si kër gi ba léegi amuñ fi lenn loo xam ne naqare nañu fi wala lu ñu fi metti amu fi ndax ñi ngi lekk ba suur ñi ngi naan ba màndi ñi ngi tëdd fu reex wax dëgg yàlla am xiiwal yëpp baawaan na mais nag lu ñu gënaloon bu ñu sañoon moom. mooy ñu defaral ñu suñu kër ñu mën saa dellu nekk sa ndax tey sa tey fii koo fi gis ay këram fees naa ndox ndox moo xam ne nii mënoo faa dem di fa dëkk dëkkuwaay bi ndox mi bëri na salte yi bëri na mënuñu faa nekk mu yàlla dogal na nag kër gi man ak sëñ Mbàkke sambu muy ñoo fi jiitu ndax dañoo suñu kër fees na Mbàkke sambu néegam daanu na ay miiram daanu na ndox mi solo na fa bagage yi yàqu na ñun ñuy waxe nopp damay wax toujours nag ne man du ma wax ci sama waxi bopp ndax yàlla am na lu mu ñëwoon Serigne Touba ñëw fi bi mu sëncee dëkk bi moom fekkul ñun ñu ñu judd te def na waj al ilahi maskani Touba abad mislasmi bi jayri xayman abad kon bu ñëwee ci lii kon day mel ni moom mooy dox ba tey rek moom Serigne Touba mooy dox wax naa ko benn way dimb ma ne gis naa ay bayit yoo xam ne yi ya Serigne Touba wax ko ñun la waxal ndax nee na lii abliya fil wa abliya fil xaamis maa fooqal munaa munaa moom defe naa mooy xiiwal lu ko ëpp lu ko gën a kawe moom defe naa a ah, wax dëgg yàlla am mu dellu wax ne yasir bi bihi la si taxasara fa kuluma yasatuhu te yasara kon daa mel ni ñoo moom loolu ndax biñ jàqee bu jógee ci suñ kër yi biñ ñëwee fii suñ lépp ja yomb na waa Touba ca kanam itam yàgg nañ leen di tëgg ñu ngi leen di tëgg di continuer ndax wax dëgg yàlla seen jëf ci Touba gi asamaan amul xejal xool ñun nit jëfalañ ci nag jëf lu rafet ñi nga xam ne ñoo taxaw fii jëf taxaw nag ñu jëf ju rafet muy ñi nga xam ne ñoom lañ jox fii kon nag lu ñu mën a def moom mooy sant. yàlla dogal na kër gi nekk moomuñu ko te kërug noor la dañ koo àbb nawet bu jot dañuy génn ñu ne nag comme Touba ca kanam ñu ngi defar ay néeg ak ay kër. yoo xam ne ni pour maanaam ñu amul dëkkuwaay ñu mën see nekk ñu leen di tàllal loxo di leen sàkku ñu man ñoo utal foo xam ne nii mën nañ faa nekk ñi nga xam ne seeni kër mën nañ koo defar nekk sa ñu ngi leen di ñaan dem defar seeni kër nekk ci képp koo xam ne nii nag wale woo wale gu jaral ngay jug di ñëw jërul ngay ñëw di occupé que néeg yi ñi nga xam ne nii amuñ fu ñu nekk seeni néeg yàqu na ñuy nekk si àll bi di tol talaan loolu tamit ñu ngi koy ñaax doomu aadama yi képp koo xam ne wale woo nga ñëw nga génn dem say kër ko nekk sa koo xam ne nag sa kër yàqu na bu mënoo faa nekkit ñu ngi ñaan waa Touba ca kanam ñu jàppale ñu defaral ñu ko dëgg la jàppale ngeen ñu mais lu ngeen ñu gën a jàppale ñu gën a jël ñi nga xam ne amuñ dëkkuwaay yu ñu nekk dañ koo àbbu ñi ngi sàkku ndimbal di leen tàllal loxo ngeen wutal leen fuñ nekk ñi nga xam ne seen i kër mën naa baaxaat it ngi ñaan ngi baaxal ko ñu mën see nekk. dundin moom rafet na ndax it nit ki la jox te lim la jox yéene na la ko kooku xam nañ ne loom rafet na moom ñi koy defar itam ñu ngi koy defar ci anam bu mucc ayib dinu ko jox fi ñuy tëddi wax dëgg yàlla tubarkalla kon lii moom wax dëgg yàlla xëy na loo ci mënuñoo ñàkk wax waaye wax ji moom sax moom jaru ko ci woon waaye nag mënuñoo wax ndax itam fa sakir fi ina sikra tan fal mu'minin te de loolu moom waxi yàlla la yàlla waxaat na yonent bi waxaat na ne man lam yaskuri nas la yaskuri la ku dul sant nit du sant yàlla kon war nañ leen a sant bu baax a baax a baax na leen yàlla defal jàmm defal leen xiiwal mujj gu rafet ndax loolu rek am solo ah wax di kontaan nañ gën wax di kontaan bu rafet kontaan nañ ci moom kontaan nañu lool lool lool bu kontaan mën a yem ñoo ngi leen di sant bu baax itam.